wa dakdakati aljibaalu li haybati wa sabbaha arraadu bihamdi walmalaika min xiifati allahuma bi asmaika albahiyati wa shicaati alarshiyati walkalimati alrabbaniyati wa talaasimi alabraniyati walaqsaami almalakutiyati walasraari alsaryaniyati wa tasaabiixi alyunaaniyati ilahi birafiici alsamaai wa quwati alard wa haybati alshams wa bisirri alazami alladi bayna alzulmati wannuur yaa man kasa qulubu alaarifina min nuuri aluluhiya wa yaa man arsala alriyaha nusran bayna yaday rahmatihi ilahi salli ala sayidina muhammad salaatan taftah lana biha abwaab alrida ilahi waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaab alcharri waltacsir wa taqdi lana biha jamica alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunya wal axira anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة في كل يوم الأربعاء ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور وبعد نقول لكم salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci àllarba ji fu waay mën di ziara kilifa diina yi kilifa aada di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara ñi ci opito yi te wéradi yàlla na leen yàlla dello seen sago di ziara it ñi nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal waaye di ñaan sunu senegal yal na fi yàlla def jàmm yal na yàlla tàppe yi ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wajhillahil karim mbokk yi ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne bi moom lañ leen tuddeel addua ñu di ko tuddee addua li qadaa il xawaij muy ñaan guy faj aajo mbokk yi muy émission boo xam ne bi TFM religion moo leen ko indil mu nekk émission boo xam ne bi émission bu bees la ñu bàyyi xel ni jullit ñi ñépp képp kuy dox rek yaa ngi aajo boo xam ne bi boo sañoon yàlla faj ko ñii mën nañu wax seeni soxla ñii mënuñoo wax seeni soxla ñii mën nañu yëg yëgle seeni mbir waaye am na ñoo xam ne ñiit mbokk yi mënuñu yëgle seeni mbir waaye ku nekkak ni la yàlla bindee waaye ala kulli xaal dañuy bàyyi xel ni alquranul karim huwa kanzul muminin alquran mooy suñu trésor bi nga xam ne bii lépp lu ñu soxla buñ ko gëstoo fekk ko ci bépp aaj bu waaye am bu teewloo di nga ko dégg bu dee feebar la su dee wér yaram la su dee wërsëg la su dee ubbeeku la su dee nga yootu dara bëgg yàlla yombalal la ko su dee it nga am loo bëgg te mu yéex a ñëw ci yow fooy jaar ak fooy teg sa tànk baam ko mbokk yi nañ bàyyi xel ni alxuraan solution yëpp moo ko yor yàlla waxoon nañu ne maa farrat naa fil kitaabi min cheyin man yàlla bàyyiwuma dara ci alxuraanul karim kon mbokk yi jullit bu amee soxlaam war naa mën a def loolu ñuy tudde atadarro ila allahi bakiyan mustaatafan kaman taqaabala ma al mawti wa shan wa shin jullit war na mën a toroxlu jëm ci boromam ñaan ko yitteem yàlla fajal ko ak yitte ba mu mën a doon ci àdduna ak lu mu rëy rëy ak lu jafe-jafe-jafe dara jafewul ci yàlla lépp a yomb ci yàlla moo tax mu ne ñu udooni astajib lakum fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani woo leen ma ma wuy leen ñaan leen ma ma may leen li ma yor mun leen koo jeexal bu ngeen doon dund ay siècles et des siècles et des siècles li ma yor man yàlla mun leen ko jeexal ci seen dund wa xataa bu ngeen fi jóge woon ñeneen remplacer leen sax du tax li ma yor ngeen jeexal ko kon mbokk loolu nag ci la ñu sukkandikoo ànd ak yéen ci seen émission bi ñu leen tuddee addu'a li qadaa il xawaaiji ñaanu fajukaay aajo aajo bu waaye am rek incha allah bu ñu ubbee téléphone yi léegi ànd ak yéen su ngeen wootee aajo bu waay am su ko yónnee wax ko daañu ko indil solution bu ci baax euh, keroog biñ fi jógee nag waxoon nañ leen ne incha allahu bés ni tey muy àllarba bu ñu dellusee ak yéen liñ leen di jëkk dugg li ñuy jëkk waxtaan ak yéen mooy ki nga xam ne dafa am borom kër nekk ak boroom këram te mënta fexe ba am njaboot mu metti lool ndax kuy sëy ku ne boo sañoon walaw bi wala day donte sax ñaari doom la ñaan nga yàlla sa dund yàlla wërsëgal la ko borom kër bi la jëlit bu sañoon ngeen am njaboot waaye yow mi ngi koy sëyalit boo sañoon ngeen am njaboot su ngeen tolloo foofu nag mbokk mi dañuy bàyyi xel lii ñu bëgg a wax waxoon nañ leen ne suñu ñëwee tey foofu lañuy ñuy commencé ak yéen foofu lañuy demare ak yéen muy jullit bi nga xam ne bii am na soxnaam bëgg yàlla may ko njaboot ana nan lay def ba am njaboot ñu teewlu ko waxoon naa leen ne jël leen seeni bic ak seeni këyit ngeen bind te note te xam ne njëriñu kese la li ngay jëkk a def mooy yéen ñaari way dencante yi muy borom kër bu góor bi ak bu jigéen bi da ngeen di wut ndoxu sam zam ba pare su ngeen ko amee ngeen bàyyi ba guddi ga xaaj maa bay na Euh, maa yuqaalu bil arabiyati nisfu leyli xaaju guddi diggante min wi heure ngeen jàpp ba set yow ku jigéen ki nga julli ñaar rakka moom ku góor ki mu julli ñaari rakka rakka bu ci nekk ngeen def fatiha benn qul huwa allahu ahad juróom-benn yoon fatiha benn qul huwa allahu ahad juróom-benn yoon su ngeen paree ngeen sëlmal yéen ñaar ñëpp ngeen jël seen kurus ngeen def astaghfirullah téeméer yoon salaatu ala nabi bu ngeen man ngeen def ko téeméer su ngeen pare nag yow ku jigéen ki su fekkente ne lii ñi bëgg wax mënoo ko nga jox sa borom kër sa sa sa zam-zam mu defal la ko comme ni mu koy defalee boppam ñu teewlu ko nag te bàyyi ko xel yow borom kër bu góor bi jëlal ndoxu zam-zam bi nga jublu penku nga jàng ci li ñuy bëgg a wax li ngay jàng mooy bismillahi arrahmani arrahim ka heya in saat zikru rahmati rabbika abduhu zakariya iz naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni washta'ala arra'su shayba walam aku bi du'aika rabbi shaqiya wa inni xiftu mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya gis nga mi ngi noonu muy lam solo nekk ci suratu Maryam moom kër gi di jàng fukki yoon ak benn mu tufli ko ci zam-zam bi jox ko ki nga xam ne kii mooy soxnaam mu naan ko moom it mu naan bosam waaye it euh, des na ba tey ci li ñuy bëgg a wax su paree ci loolu balaa ñuy naan ndoxu zam-zam bi ñoom ñaar ñëpp liñ ci teg mooy wa zakariya isnada rabbahu rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul warisin mu nekk ci suratul anbiya ci 88 ba 89 ñi bamtuwaat ko wa zakariyaa iz naada rabbahu rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisin muy lu am solo lool su jàngee suratu Maryam bi ka heya insaat fukki yoon ak benn mu tegaat ci wa zakariyaa iz naada rabbahu rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisin muy fukki yoon ak benn mu tufli ko ci ndoxu zam-zam bi mu naan ko soxna si naan ko ñu tëdd nelaw waaye sopp nañu nag mbokk yi loolu ñuy naan mu mujj ci seen biir sopp nañu it boo ko bu ngeen koy jëfandikoo ngeen bàyyi ba weer wi feeñ bu ñu nee tey la weer wi feeñ ngeen commencé ko ci bésu bi nga xam ne bi laqad zahara al xamar aw laqad tala al xamar min wara il guyum wa xamara bi nuurihi tilka bi wa shawaati bu weer feeñee daal ngeen commencé ko boole ko ak ndoxu zam-zam bi bu ngeen demee ba weer wi nekk badaran kaamilan maanaam weer wi roona ba mat sëkk lépp lu ngeen ci ñaan yàlla ci njaboot yàlla dina leen ko may mbokk yi ñu bamtuwaat ko ngeen teewlu ko nag te jël seeni bindukaay bind mu bañ leen a rëcc da ngeen di jàpp ba set nisfu layli su ngeen koy def nag su dee bés bi ngeen ko war a commencé sopp nañu mu nekk bésu dimaas ci guddi ngeen jàpp ba set julli ñaari rakka yéen ñaar ñëpp fatiha benn yoon qul huwallahu ahad juróom benn yoon su ngeen pare ngeen def astaghfirullah téeméeri yoon salaatu ala nabi téeméeri yoon su ngeen paree nag mbokk mi yow mi nga xam ne bi yaay soxna si te sa àll wa soriwul joxal borom kër gi sa wàll mu jàngal la ko jox la ko nga naan ko li muy jàng nag bi ci jëkk mooy bismillahi arrahmani arrahim ca sóoratu maryam muy kaaxee yaa insaat zikru rahmati rabbika abduhu zakariya is naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni washtaala arrasu shayba walam aku bi duaaika rabbi shaqiya wa inni xiftu mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya radiya googu foofu la yem mu def ko fukki yoon ak benn su paree mu jëlaat ba tey wa zakariya id naada rabbahu rabbi laa tadarni fardan wa anta xayrul warisin mu def ko fukki yoon ak benn boole ko ndoxu zam-zam bi soxna si naan moom mu naan waaye nag bi chartin ci condition condition bi mooy na ngeen bàyyi ba weeru feeñ indama tala al xamar min wara il guyumi wa xamara bi nuurihi tilka rawaabi wa shawaati mu ngeen door a commencé nag loolu di ko jëfandikoo ci weer wi eh, bés bi weer wi feeñee ngeen topp ko guddi gu nekk ngeen di ko def ba mu weer wi mat sëkk ba nekk badran kaamilan su ngeen ko defee lépp lu ngeen ci sàkku ci njaboot yàlla dina leen ko may ngeen bàyyi ci xel bu baax ah, mbokk yi mu ngi noonu du tee ñu ànd ak yéen nag ubbi téléphone yi ànd ak yéen ci 88 628 99 80 wala ngeen ànd ak ñun ci 00 221 33 841 23 23 waa bitim réew ñoo moom numéro boobu mën nañ ci ànd ak ñun waaye waa Sénégal mën nañu ànd ak ñun ci vingt 88 628 99 80 su ngeen ñu wooyee léegi di ngeen ñu jot incha allah nahnu fi intizaarikum xaalan euh, bi haadayn arraqmayni incha allah xaysuma ittasaltum bina xaalan Euh, bi nga xam ne bii nag mbokk mi waxoon nañ nañ ko fàttali balaa ñuy jàll mooy soo amee soxla bu jàmp waxoon nañ ko dinañ ci baam tuwaat ngeen bàyyi ko xel soxla bu jàmp mooy nga fanaan borset nga bëgg am loo lijjanti ji mu të ci wàllu xaalis wàllu kayit wàllu yokkute looy yootu bëgg yàlla yombalal la ko wala ngay lijjanti loo xam ne lii soo sañoon du yàqu du tardé du am benn jafe-jafe bu la jaaxalee ba jaaxal la lii ngay def moom lañ leen di wax te di ko baamtu ndax jullit ñi jëriñu ci ndax problème bu am ci àdduna yàlla alquran indil na ko solution ngeen bàyyi ci xel kon mbokk yi moom lañ leen di indil ngeen teewlu ko te bàyyi ko xel waxoon nañ leen ne su ngeen amee soxla bu jàmp balaa borset ci guddi gi julli leen ñaari rakka rakka bu ci nekk ngeen def fatiha iza jaa nasrullah juróom-ñaari yoon su ngeen pare ngeen def astaghfirullah téeméer salaatu ala nabi téeméeri yoon su ngeen paree nag ngeen wérd allahu ya fattaahu ya razaqu ya jaamiu allahu ya fattaahu ya razaqu ya ngeen wérd ko mille cent onze da ngeen di def onze cent mille mille cent onze ci wolof mooy junni ak téeméer ak fukk ak benn su ngeen pare balaa ngeen di def loolu da ngeen di def euh, fukk ak benn def téeméer door a def nag junni bi kon ngeen bàyyi ci xel bu baax su ngeen paree nag ci wérd bi mbokk mi ngeen jàng ñaan bi ñu baamtuwaat ko gis nga turu yàlla yére day am ensemble turu yàlla day ànd ak ñaan bu mat sëkk su ngeen paree ngeen door a def seen ñaan ñaan bi mooy allahuma iftax lii wa anta xayrul fatihin wansurni wa anta xayrul nasirin wa yassir lii abwaabal xayraati kulliha kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin allahuma iftax lii wa anta xayrul fatihin wansurni wa anta xayrul nasirin wa yassir li abwaab alxayraati kullaha bi rahmatika yaa arhamar rahimin mooy ñaan gi nga xam ne gi moom ngay répété euh, soo paree ci euh, ci wirde bi nga jàng ko 66 sa yaqdillahu xaajataka aajo boo ko dugal rek boo xëyee jublu ci aajo ba yàlla dina la ci defal lu kawe sa njot gis nga lii nag day wone ne wa fil qur'ani ma huwa shifaun linnaasi wa rahma alquran ci la lépp nekk aajo yi faju yi ci lay nekk wér yaram gi ñu soxla ci la nekk lépp lu ñu bëgg rek nañ ci bàyyi xel ci la nekk ala kulli xaal su ko defee ñu dellusiwaat ak yéen nag tey ñu ngi dugg ak yéen ci bunt yoo xam ne buntu yu am solo la ci buntu fajukaay aajo yi nga xam ni boo ko da boo ko toppee yëpp da koy am ci alquranul karim gis nga mbokk mi soo amee feebaru xol moo xam tension la buy yéeg buy wàcc xol buy metti crise cardiaque ak loo mën a am ci àdduna waaye li am solo daal na nekk xol buy metti rek su dalee yàlla na la ko defal lii ñi bëgg a wax nañ ci bàyyi xel bu gudd jotee balaa dara xew jëlal meew mu tàng waxuñu mu tàng ba di la lakk waxuñu it muy tàng ba di la sonal waaye it mbokk mi meew mi mu sedd ñu bàyyi ci xel muy lu am solo loo xam ne lii dañ leen koy toppal incha allah fas yéene ci ànd ak yéen euh, ngeen teewlu ko ñu nit ñi teewlu ko e ngeen bàyyi ci xel bu baax ndax dañuy bëgg jullit ñi alladina hum fi taabin wa mashaqatin wa diqin shadidin li yuxrijahum allahu min altaabi walmashaqati wa diqi shadidi yàlla génne ñu ci xat-xat bari yi jafe-jafe yu bari yi feebar yu bari yi jullit ñaari noon la am ci dundam yu rëy ñaari noon yi gën a rëy ci dunduk doomu aadama dinañ leen ko wax ngeen xam ko bi ci jëkk mooy feebar muy almaradul xatir fi jismil insaan ñaareel bi mooy alfaqr muy pauvreté pauvreté ak feebar mooy ñaari noon yi gën a rëy ci dunduk doomu aadama te ñaari noon yooyu yëpp alquran éradiqué na ko génnee na ko dàq na ko ndax amal na ko solution ba pare mbokk mi su sa xol di metti moo xam crise la moo xam euh, cardiaque la moo xam ak lu mu mënti doon waaye daal jàppal ni am nga xol buy metti da ngay jël meew mu tàng mu nugg mu yem du la sonal boo koy naan nga bàyyi ba guddi gi xaaj mu mujj ci sa biir nga jël sa kurus nga jublu penku nga jàng bismillahi rahmaani rahim alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadraka yemal foofu bu ko weesu alam nashrah laka sadraka moom ngay wér de guddi gu nekk balaa ngaa tëdd defal benn genn wàllu kaasu meew nga jàng alam nasrah laka sadrak 666 nga ëf ko ci meew moomu nga di ko naan guddi gu nekk balaa nga tëdd ni meew mi weexee yàlla ci mbaaxam dina jël alam nasrah laka sadraka leer gi ci nekk mu jaar ci sa biir xol raxas ko ndegem pikiir la nit mën a def ci biir yaram muy xotti sa biir yaram di xotti say tissu di tas ci biir yaram ba àgg fi mu war a àgg yëpp te ndoxu kese la astamak nag nuurul yaqin muy leer gi yàlla def ci alquranul karim kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci ne eh, wa fi alqurani ma huwa shifaun linnaas wa rahma lépp lu ñu soxla ittewoo ko ci feebar ite soxla bu ñu delloo ci alquranul karim daañu ko fa fekk alam nashrah laka sadrak meew mu nugg ngay jël nga wér de ko six cent soixante six guddi gu nekk nga di ko naan inchaa allahu mbokk mi kër boobu nga xam ne mooy battre ba ëpp dina am ñu ko modéré ba nga xam ne it na mu daan battre dootul ko battre su fekkee ne tension ba ëppale it yàlla dina la ci jàppale su fekkente ne crise booy am eh, yàlla dina dalal sa xol ba la nga ca daan am ci métit ak i coono dootoo ko jotati kon mbokk yi nañu bàyyi xel muy lu am solo lool muy alam nashrah laka sadrak waaye mbokk mi alam nashrah du lool rek nag loolu junj la tegtal la bu ñu buñ leen indil ci tegtal yi alam nashrah yi des na yeneen yi ci topp dinañ ci ñëw incha allah euh, di xaarandi askan wi ci numéro yooyu ñu tudd léegi muy 88 628 99 80 wala 00 221 33 841 23 23 su ko defee mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci lu am solo waxoon nañ leen ne àllarba bi incha allah bu ñu ñëwee dinañ leen indil ay mbir yoo am solo fi xayaatil insaan kayfa yaishu al insaan naka la nit di dundee ànd ak alquranul karim yor ko nekk ak moom laylan wa nahaaran guddi ak bëccëg suba ak ngoon wa anta fi diqin shadidin aw fi maradin xatir aw fi mushkilatin min almasakil aw fi xawaijin laa tuaddu wala tuxsa nga nekk ci ay xat-xat nekk ci ay feebar yu metti nekk ci ñàkk gu tar bari aana ku guddi di nelaw ñëpp di nelaw mu jóg toog di xalaat bu bërsatee lu muy jox ay njabootam bari aana ku feebar sonal ñëpp dina la mu jóg toog di xalaat feebaram bari aana ñoo xam ne ñii feebar bi leen yàlla teg ñu ngi koy nëbb bëgguñu sax nit xamal leen ko soo ñëwee ñu kaf ak yow ree yow waxtaan ak yow ba nga dem soo demee ñi dellu ci seeni metit waaye it bari aana mbokk yoo xam ne yi suñu tëddee guddi ñi ngi xalaat bu ñu xëyee ana lu ñu jox seeni njaboot mu ni ñii mën nañoo mën nañoo wax seen bopp ñii yàlla def na mënuñoo wax seen bopp mu metti lool di tiisu metti waaye da ngeen bàyyi xel ni alquranul karim luñ ko laaj yàlla yàlla joxuñu ko ndax huwa kanzul muminin mooy suñu trésor alquran mooy lépp alquran mooy faj suñuy soxla alquran mooy régler problème yi jafe-jafe yi àdduna yi yi fii ñu nekk ak fa ñu jëm yëpp alxuraan moo koy saafara kon mbokk yi mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel mbokk mi ñaanoon nag eh, ñu indil ko lu am solo mooy sooy tabax kër booy tabax kër mbokk mi nga bëgg yàlla defal la ci lu kawe sa njoot kër goo xam ne gi boo paree di nga fa dund sëy sët dund ci say setaati set dund ci te du màbb du daanu du am benn jafe-jafe muy li yéeme lool ngeen xam ne alxuraan rek moo man lu ne da ngeen di jël juróom-ñaari xooxu tàndarma waxuñu tàndarma bi ñuy lekk dangay lekk ñam yi ba mu des xoox bi rek doomu tàndarma bi nga konte ko ba muy juróom-ñaar nga teg nga jëlaat yeneen juróom-ñaar konte ba muy juróom-ñaar nga teg nga di ko def ba muy ñeenti juróom-ñaar ñeenti juróom-ñaar moo yor kër li ñuy naan quatre pieds yi nga xam ne yi moom ngay defar booy def fondement muy ñeenti pieds yi nga xam ne mooy téye kër gi boo ko gasee ba pare balaa nga def ay béton di def ciment bay bétonné pax mu nekk ci ñeenti pax yooyu nga xam ne mooy téye kër gi jiital ci juróom-ñaari xooxu tàndarma bu ci nekk nga teg ko sa kanam nga jàng ci iza zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqalaha wa qaala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha yawma idin yasduru nnaas ashtatan li yaraw acmaalahum wa man yacmal misqaala darratin xayran yarah wa man yaamal misqaala darratin charran yara nga jàng ko 66 ci xooxu tàndarma yooyu kër gu nekk maanaam pax bu nekk nga dugal fa juróom-ñaari xaw ko tàndarma nga jël béton booy am sottil ci kawam soo amee sa ciment sottil loo ci bëgg a taxawal taxawal ko xooxu tàndarma yooyu mbokk yi nga xam ne wa fi sirri wa fil asraari nañ ci bàyyi xel juróom-ñaari xooxu tàndarma yu tuuti yooyu mooy téye kër gi ndax dafa am lu koy amplifier loo xamul seen tuutiwaay boobu boo ko toppee da ngay juum ndax li koy amplifier ba mu am degré bu mën a téye kër mooy nuurul yaqiin nuurul yaqiin mooy leer gi yàlla def fi alquran al azim alquran nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yacha wa yadribu llahu al amsal linnaas wallahu bi kulli cheyin alim alquran leeru kese la leer googu nag mooy amplifier mbokk mi xooxu tàndarma yooyu ngay xeeb ak seen tuuti waay waaye li muy tuuti tuuti tuuti bari aana lu tuuti tërëy lool bari aana lu tuuti sunuy bët tërëy lool ci biir ni ma koy farataal di waxee ci sunum réew Sénégal baladun saxirun fi xajmihi wa kabirun fi batinihi senegal réew mu tuuti la ci jëm waaye réew mu rëy la ci biir ndax li fi yàlla def ci ay al awliya wa saalihin euh, kenn xamul lu mu toll Euh, ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk mi muy laamu solo waxoon nañ leen ko muy kii ñaanoon ñu indil ko lu mel noonu ci bâtiment bu mu manti doon moo xam étage la moo xam teraas la moo xam noo ko bëgg a taxawee waaye dal na nga góor góorlu ba juróom-ñaari xooxu tàndarma yooyu nga jiital ko ci ñeenti koñu kër gi nga xam ne ñoom ci la pieds yi di taxaw ñu bàyyi ci xel bu baax muy lu am solo lool mbokk yi ñu bàyyi ci xel dinañ ci ñëw léegi mbokk mi nga xam ne moom it dafa waxoon ne bu ñu ñëwee nañ ci jaaraat ñaari mbir yi nga xam ne waxoon nañ ko ci àllarba bi paase mooy ki bëgg soxna muy benn ak ki nga xam ne kii dafa bëgg borom kër ana ban ñaan moo ci gën a gaaw ci ki nga xam ne kii dafa bëgg soxna te mënugu ko am ak ki am bëgg borom kër di soxna te mënugu ko am waxoon nañ leen ko dañ leen wax ni suba soo xëyee nga def 66 yuhibbunahum ka hubbillahi walladina amanu ashaddu hubban lillah yuhibbunahum ka hubbillahi walladina amanu ashaddu hubban lillah nga def ko 66 suba 66 ngoon incha allahu boo ko toppee léegi yàlla may la borom kër bu baax su dee borom kër ku góor it yàlla mën na ko may soxna su baax euh, nañ ci bàyyi xel mooy yuhibbunahum ka hubbillahi walladina amanu ashaddu hubban lillah mbokk mi mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel euh, beneen bi ci tegu nag te ñu waxoon ko fii di ko baamtu ndax mbokk yi dañuy bëgg saa su ñëwee ñu baamtu ko muy cat ak làmmiñ ñu bari dañuy wax ne dafa leen a sonal muy cat ak làmmiñ ndax ku nekk ak li la gën a soxal ak li la gën a yitteel waaye daal bari aana ñuy woote di wax ne cat ak làmmiñ daf leen sonal waxoon nañ leen ko nag te dinañ ci jaaraat nit ñi xam ko saa yoo leen te julli farata bu dee suba ngeen julli ba pare jël leen seen kurus ngeen wërd euh, waylun li kulli humazatin lumazatin waylun li kulli humazatin lumazatin yoon muy cent onze téeméer ak fukk ak benn cent onze nga koy def saa yoo jullee boo jullee tisbaar nga defaat ko cent onze tàkkusaan noonu timis noonu gee noonu yàlla dina la musal ci cat ak làmmiñ nga xam ne mbokk yi dañuy woote saa ne di ko laaj bëgg bu ñu ñëwee ñi jaaraat ci muy seen njëriñ bu am solo nañ ci bàyyi xel bu baax ñu baamtuwaat ko waylun li kulli humazatin lumazatin cent onze ci julli farata bu nekk incha allahu yàlla ci mbaaxam eh, dina la jàppale ba loolu du la gaañ du la sonal du la fitnaal eh, beneen bi nga xam ni moom lañ ci teg nag mooy nañ ci bàyyi xel fàttali askan wi numéro yi 88 628 99 80 wala 00 221 33 841 23 23 waa bitim réew mën nañu ànd ak ñun ci numéro yooyu xaalan Eh, ñu ngi leen di bàyyi xel di leen teewlu eh, ki nga xam ne kii nag moo wax ni moom it soxnaam eh, dafa am soxna te saa yu mucc day sonn saa yu am doom day sonn muy laaj ban ñaan moo ci baax boo xam ne bii bu ko jàngee saa yu soxna si di mucc du am jafe-jafe du am xat-xat yi ci yi muy àndal yépp yàlla mën ko cee muccal mbokk mi su fekkente ni yow mi borom këram jàng nga alquran su demee ba am juróom-ñaari weer ba juróom-ñett bay waaj a dugg juróom-ñeent da jël sa loxo guddi gu nekk balaa mu tëdd nga jël sa loxo nga teg ko ci biiru soxna si nga jàng lii ñi bëgg a wax muy bismillahi arrahmani arrahim allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaadu wa kullu cheyin indahu bi miqdaar ñu bamtuwaat ko allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu al arxaam wa ma tasdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar nga teg ko ci biiru soxna si nga di ko jàng fukki yoon ak benn nga wëlbatiku ci côté ndeyjooram ci faaru ndeyjooram nga jàngat fa allahu yaalam ma taxmilu kullu unsa wa ma taxiidu al arxaam wa ma tasdaad wa kullu cheyin indahu bi miqdaar nga defaat ko ci côté càmmoñ bi guddi gu nekk nga di ko def ba muy juróom-ñaari guddi su juróom-ñaari guddi matee yemal foofu soxna si dina mucc te du am benn fitna loo ci du ci am loo ci xalaat yàlla la ko teggil te dina mucc te du am benn fit ñi koy teewa te teewalit yàlla dina leen jàppale ba ñu assisté ko mu mucc ci jàmm ak salaam te dara du ko ci fekk kon mbokk yi mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel euh, ci ñi nga xam ne ñu ñoo woote woon yónnee seeni laaj bëgg ñu indi ci ay leeral su ko defee mbokk yi mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel euh, waxoon nañ leen ne wali kulli xaajatin min xawaaiji dunyawi dunyawiyati xadaa euh, soxla bu nekk am na solution su ngeen àndeek ñun ñu ànd ak yéen dugg ci alquranul karim daañu gis solution yi ci biir alquran waaye mbokk yi euh, du ñu dañ ba léegi di ànd ak yéen di leen indil li nga xam ne lii am na solo lool ci nit di ko bàyyi xel euh, muy lu am solo lool ñu di ko teewlu eh, di ko topp ànd ci ak yéen sasu su ci waxtu wi eh, ci seen émission biñ leen tuddalee addu'a li qadaa'il xawaa'ij muy ñaan fajukaayu aajo yi aajo bu waaye am incha allah boo wootee ànd ak ñun ci 88 628 99 80 nañ la nañ la indil leeral wala nga ànd ak ñun ci cent 00 221 33 841 23 23 mbokk yi ñu ñëw ci ci fi ñu toll woon léegi di leen wax ni mbokk mi nga xam ne mii dafa nekk bitim réew yàlla natt ko mu bëgg a ñibbisi te mënul ñibbisi sonn lool ndax am am bi mu bëggoon yàlla may ko ko ak mag dugg na balaga na sinna cheykhuxa mag dugg na sa âge nga li nga bëggoon amoo ko bëgg ngaa ñibbisi te mënoo ñibbisi li kasratil mashakil ndax soxla yitte yi bari xat-xat yu bari ñii feebar nañu mënuñoo ñibbisi ñii bëgg nañoo ñibbisi mënuñoo ñibbisi mbokk yi ñu bàyyi ci xel bu baax su fekkente ne nit ki tollu na foofu nga bëgg a ñaan sa borom yàlla ci mbaaxam taxawu la boole la ak waa ju baax mu assisté la wutal la sërica jëndal la billet jàppale la ba nga dugg aéroport ba ñëw seeti say njaboot ndax jullit bu nekk su nekkee bitim réew di fa daan dooleem di nga toll jëmmi jamono li des ci sa dund dangay bëgg nag ñëw àggale ko ci sa biir njaboot donte yàlla da lay jël sax dangay ñaan mu jël la ci sa biir njaboot ñu assisté la jàppale la taxawu la muy lu am solo bari aana ñu nekk bitim réew bëgg ñibbisi mu jafe leen ci xamuñu ban solution lañuy jaar ba yàlla may leen bunt ñu mën a ñibbisi yooyu nag boo ci tolloo mbokk mi dañ lay diggal lii ñuy bëgg a wax jàngal fatiha bu sell boo paree nag ci fatiha bi nga jël sa kurus mbokk mi nga jàng lii ñuy bëgg a wax nañ ci bàyyi xel mooy innahu ala raj'ihi la qaadirun innahu ala raj'ihi la qaadir nga di ko def mille cent onze suba def ko mille cent onze ngoon inchaa yàlla dina la boole waaju baax waaju bari yërmande taxawu la jàppale la assiste la ba nga jógee bitim réew ñibbi ci sa réew ñu bàyyi ci xel su fekkente ne it dafa nekk bitim réew ngay ñaan yàlla yàlla na la ko yàlla indilil bi ahsanil wujuh dee leen jàng mille cent onze innahu ala raj'ihi la qaadirun moom mi nekk bitim réew saa yu demee ba bëgg ñibbisi te xam na réewum jàmbur xat na ci moom jataay ba neexatul wér gu yaram gi mayetu la ko xat-xat yi bari na wa turidu rujua ila masqati rasik kama yuqaal nga bëgg ñibbisi sa dëkk te amoo ay pexe amoo solution alxuraan ne man am naa solution waxal ak man mooy innahu ala rajihi la qadirun nga di ko def mille cent onze fu waaye mën a ne ci àdduna bés boo demee ba ñibbisi xat ci yow nga bëgg ñibbisi mu jafe lool nga bëgg dellu si mu jafe lool fexeel nga jël sa kurus nga jublu penku mbokk mi nga wér de innahu ala rajihi la qadirun mille cent onze inchaa allahu yàlla ci mbaaxam dina na tàggatal waaju baax jula assisté lool ba ngay ñibbisi sa kër ñibbisi ci say njaboot euh, toogaat ak ñoom li des ci sa dund xataa jaa akal yaqiin ba saa yu yàlla ñëwee ak mbiram gis nga nag mbokk yi dañuy ñëw ci lu am solo lu ñu fi waxoon mbokk yi di woote ndax dañu farataal di wax ni fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fàttali dafa baax ci jullit yi ndax bariyaana ku fàtte woon bëgg fàttaliku bariyaana ku jàppoon dara am lu ko ci rëcc waaye bariyaana it ku ku lay woo di la wax ni la nga waxoon ci jamonoy sàngam soo ñu ko mënoon a baamtul dafay gën ci ñun day baax kon ñu teewlu ko te bàyyi ko xel euh, di ko baamtu yenn saa yi dafay baax euh, ci tur yàlla bi nga xam ne bii waxoon nañ leen ne dooleem foo ko takk weesu na ko foo ko xaar ëpp na foofu paaka ñaari boor la foo ko yóbbu mu dem ak boppam muy allahu yaa qaadir waxoon nañ leen ko waxoon nañ leen ne soo leen ko su ngeen koy liggéey da ngeen di julli ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk nga def fatiha alam nashrah juróom-benn yoon su ngeen pare nag ngeen def astaghfirullah téeméer ba pare ngeen def salaatu ala nabi bi nga gën a man téeméer yoon soo paree nga door a wird allahu yaa qaadir neuf cent quatre-vingt-dix-neuf allahu yaa qaadir min akabiri asmaillahi alxusna bokk na ci turu yàlla yi gën a mag ci turu yàlla yi nañ ci bàyyi xel allahu wa jalaaluhu wa majduhu wa kibriyaa'uhu aqwa wa a'azzu wa ajallu min kulli shay'in moo tax ñi naan allahu yaa xaadiru ya xaadiru boobu nag tur la woo xam mbokk yi paaka ñaari boor la loo ko booleel rek mu dem ba mu dem ak loola kon nañ ci bàyyi xel nga di ko def ñi di ko farataal di wérd neuf cent quatre-vingt-dix-neuf waaye waxoon naa leen ni ñaan ensemble daf ci baax yére ensemble daf cee baax kon tur yàlla dafay ànd mbokk mi ak ñaan nañ ci bàyyi xel bu baax euh, su ñu paree nag ci allahu yaa xaadiru 999 ñu jàng ñaan gu mag gi waxoon nañ leen ko muy allahumma yaa awalu yaa axiru yaa zahiru yaa batinu yaa qaadiru yaa muqtadiru yaa qawiyu yaa matiinu yaa jabbaaru yaa qahaar aslih umuuri wa kassir xayraati waqdi xawaaiji zaahiran wa baatinan innaka ala kulli cheyin qadir gis nga rabu samawaati wal ard aka bëgg ku ko ñaan aka sopp jullit bu koy ñaan yàlla boo boo koy ñaan bul tàyyi laa tay as min rawxillah boo tàllalee sa loxo di ko ñaan di wax ak moom góorgóorlul ba diggante sa xol ak sa xel dara du fi dox lu rabbu samawati wal ard allahuma rabbi anta al awal anta al axir laa yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutik irtafaat ya ilahi an sifati almaxluqin sifatu qudratik wa ala an zikri zakirin kibriya azamatik wala yantaqis ya ilahi ma arat an yazdaad topp ko rek xataa xataa wa xataa ba ba ngay sori gis nga da ngay dem ba ci biir ñaan gi laa tara illa wala tashuru illa gis nga da ngay dem ba ci xaal foot xam ne fii dootoo gis lu du rabbu samawaati wal ard kon mbokk yi ñaan am na solo fal namud aydina ilallahi jalla wa ala innahu laa yaruddu yadal basa wa raja ilay yàlla du delloo mukk loxoy al abdul faqiru daifu lmiskin alladi madda yadahu ilay yàlla du delloo loxoy jaam bi nga xam ne bii dafa néew doole amul dara jullit amuñu dudul rabbu samawati wal ardi lu ñu am lu ne moom la bu ñuy dund moom la bu ñu génne àdduna moom la bu ñu bari barilee moom la bu ñu néewlee moom la in faalun li maa yurid mooy def lu ko neex kon mbokk yi nañu bàyyi xel ne rabbu samawaati wal ardi ah, mooy lépp fan la mu daay dinaa ilayhi nañ tàllal sunuy loxo di ko ñaan ndax yàlla fajal ñu sunuy xawaayij muy sunuy soxla ndax nag ah, bu ko fajul ana ko koy faj jar naa laaj kon nañu bàyyi xel ci addu'a muy ñaan

Euh, ba ko teewlu mu am lu ko ci manqué ñu waxaat ko allahumma yaa awalu yaa axiru yaa zahiru yaa batinu yaa qaadiru yaa muqtadiru yaa qawiyu yaa matinu yaa jabbaaru yaa qahaaru aslix umuuri wa kassir xayraati wa aqdi xawaaiji zahiran wa batinan innaka ala kulli cheyin qadir hada huwa duaau allahu ya qaadiru kii mooy ñaanuk allahu ya qaadir nañ ci bàyyi xel kon mbokk yi nañu bàyyi xel ni allahu ya qaadiru min akaabiri asmaa illahi alxusna wa kadalika al axarin dinañ ci ñëw inchaa allah yeneen asmaa yi nga xam ne yi bokk nañ ci asmaullahi alxusna kon mbokk yi ñu teewlu ko te bàyyi ko xel bu baax gis nga nag dañuy farataal di wax ni jullit sooy ñaan rabbu samawaati wal ardi wala ngay jàkkaarloog moom walla ngay déeyontee ak moom na nga fexe ba sopp nañu yére yi nga gën a naw ci sa yére yi nga sol ko place bi nga gën a fonk ci place yi nga toog fa parfum bi gën a xeeñ ci sa parfum yi nga xeeñoo ko nekk ci néeg boo xam ne bu fa jigéen nekk bu fa xale nekk bu ko bokk kenn anta mun faridan fil bayti tëjal bunt bi tëjal paranteer bi nga daal di toog di mustaqbilal qiblati jublu penku nga fas yéene diso ki nga xam ne kii bu loolu woon moom dara du sotti rabbi samaai wal ardi wa nuuri wa zulmati wa zilli wal xaruur yaa man shaqal bihaara wa ajral anhaar yaa man rafaa samaa bi gayri amadin wa yaa man huwa ilahun fi kulli makan misluhu la yura ya rabbi ñu bàyyi ci xel euh, muy lu am solo lool euh, nañ ci bàyyi xel defe naa am na ko nekk ci ligne bi euh, dinañ ko jël léegi incha allah xam naa daf dina ñëwaat ci kanam ñu ngi koy teewlu di ko bàyyi xel saa su ne ci ligne bi waaye su ko defee ñu fàttali askan wi allahu ya xaadiru mooy tur woo xam ne wi ci tur yi mag yi bokk nañ ci bàyyi xel allahu yaa qaadiru neuf cent quatre su ngeen paree ngeen tëje ko ñaan bi juróom-ñaari yoon allahumma yaa awalu yaa axiru yaa zahiru yaa batinu yaa qaadiru yaa muqtadiru yaa qawiyu yaa matin yaa jabbaaru yaa qahaar aslih umuuri wa kassir xayraati waqdi xawaaiji zahiran wa batinan innaka ala kulli cheyin qadir gis nga ñaan gi moom mooy tëje moom ngay tëje juróom-ñaari yoon wérd bi nga wérd muy allahu ya qaadiru 999 wa fi hada duaa sirrun kabir kama fi hada al ism sirrun kabir gis nga mbokk mi ida kunta tad'u rabbaka sooy woo sa borom fa kun mutadarrian amaamahu baakiyan mustaatafan kaman taqaabala maa al mawtu washan li washin yàlla boo koy ñaan na nga toroxlu sa diggante ak wax ji ak bii lii génn sa xol bu fi dara xëj ndax kilifay kilifa yi ngay waxal te moo jar lu ne yàlla jar na lu ne mbokk yi yàlla jar na lu ne ci ñili ladina yaarifuuna rabbu samawati wal ardi ku ko xam bu baax xam ne yàlla jar na lu ne soo demee ba jàkkarloog moom di diisoo ak moom di ko di say soxla say ajo naan ko yaa rabbi rabbana nangam nangam ifal lana kaza wa kaza rabbana aqdi li xawaaija nangam topp ko noonu boo demee ba toll foofu rek mbokk mi na nga ba sa diggante rabbu samawaati wal ardi dara bu mu fi xej bul xalaat kenn ku dul moom bul doxale sa diggante ak dara dul moom rekk kon su ko defee bu ngeen fa tolloo yàlla dina xam ne abdi haza sama jaam bii de dogu na ndax joxe na ma cër bu mag wan na ma yëgal na ma boppam wax na ma boppam madda yadahu ilayya wa ana la uruddu yadal ba'si wa raja li abdin daani wa madda yadayhi ilayya man yàlla duma delloo loxoy jaam bi nga xam ne bi tàllal na ko jëm si ci man ñu bàyyi ci xel euh, su ko defee muy laam solo lool mbokk mi nañ ko teewlu te bàyyi ko xel bu baax muy laam solo waxoon nañ leen nag soo leen di naanati comprimé waxoon nañ ko mbokk mi ne nañ bu ñuy ñëwee ñu jaraat ci ndax bari aana ñu koy laaj moom it bëgg teewlu bëgg ko fàttaliku ñu jaraat ci ñu fàttaliku ko mbokk mi soo leen di naan comprimé wala ngeen di pikiru wala ngeen di naan garab bu mu mën a doon dee leen ci jiital fa sanu lil yusra juróom-ñaari yoon nga door a naan sa comprimé walla nga door a nga door a def looy def fa sanu yassiruhu lil yusra ñu bàyyi ci xel te teewu la ko gis nga loo ko booleel lu ne yàlla dina barkel loola loo ko booleel lu ne la nga ci séentu yàlla dina la ci defal lu kawe sa njort su dee comprimé booy naan jiital ci fasanu yassiruhu lil yusra sooy def intervention chirurgicale en tant que médecin defal fasanu yassiruhu lil yusra balaa nga laal dara sooy rewle jigéen yow mi rewle balaa ngaa def dara jiitalal fasanu yassiruhu lil yusra su fekkente ni it yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey ci beneen fànn budul boobu balaa nga jëfandikoo dara jiitalal fasanu yassiruhu lil yusra muy la am solo lool ci fànn yëpp wa mbokk mi euh, su fekkonte ne sax dangay sumb lu bees wala ngay bëgg a taxaw lu bees loo xam ne nii duggagoo ci taxawagul sotteegul waaye sumb nga ko bëgg nga mu sotti dee ci jiital lu mu loo yàkkamti yàkkamti nga jiital ci fasanu yassiruhu lil yusra juróom-ñaari yoon mu ngi noonu ngeen bàyyi ci xel ci ñi nga xam ne ñi dañ doon wax ne saa suñ ñëwee nañ ko baamtu euh, muy la am solo euh, ñu jaaraat yi di ko fàttali nag mbokk yi ndax euh, fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin nañ di fàttali ndax fàttali dafay jullit dafay jëriñ jullit yi nga xam ne ñoo ñuy déglu bëgg suñ ñëwee rek ñu jaaraat ci laa kulli xaal Euh, ci 88 628 99 80 wala 00 221 33 841 23 23 ci waa bitim réew yi nga xam ni euh, ñu ngi teewlu saa su ne ci waxtu wi mbokk mbokk yi dañuy ñëw ci fi ñu tolloon sànq ci euh, fi usbuil qaadim fi usbuil maadi ci semaine bi passé Euh, waxoon nañ leen ne leen soo amee bopp bu metti bu sonal wala sa mbokk wala sa am di jàmm wala sa xarit wala sa kóllëre bari aana ñuy wootee ne daf dañu am bopp yu metti yu leen sonal te bëggee ñu indi leen ci ay tegtal lu ci baax mbokk mi dangay jël ndox mu sedd nga jàng ci wal aadiyaati dabxan fal muuriyaati qadaxan moom nga koy ñaane di ko wërale bopp ki nga xam ni kii day metti ak ndox mu sedd wal aadiyaati dabxan fal muuriyaati qadaxan dafay baax lool nga di ko moccee bopp ki nga xam ne kii mooy metti mahma istadda alamu raasi Euh, nu bopp méttee ba métti ak façon metti bu mu mën a métti euh, boo ko moccee ak ndox mu sedd boobu di ci jàng wal aadiyaati dabaxan fal muuriyaati qadxan trois fois yàlla dina ko ci defal saafara waaye yàlla yit dina ko may wér ci bopp boobu moo xam ko sonal euh, nañ ci bàyyi xel ndax saa ne waxoon nañ leen ne leen wa fi lqur'ani ma huwa shifaun linnaasi wa rahma alqur'an daal bàyyiwul dara jafe-jafe yëpp amal na ko solution wéri di yaram yëpp amal na ko solution ñàkk gu amal na ko solution ak yeneen mbir yi nga xam ne yi doomu aadama mu ngi koy jànkonte ci dundam bëgg ci solution suñuy delloo ci alqur'anul karim mu indil ñu solution muy lu am solo kon mbokk yi mi ngi noonu wal aadiyaati dabaxan fal muuriyaati qadxan muy nekk euh, lu am solo loo xam ne lii lu bopp métti métti soo ko jëfandikoo 33 incha allahu ak ndox mu sedd di ko ko mocce yàlla dina ko ci defal lu kawe njortam euh, muy lu am solo lu jar a bàyyi xel mbokk yi mi ngi noonu ñi bàyyi ci xel muy lu am solo Euh, di bàyyi xel ci ligne bi nga xam ne ñi ñoom it bëgg nañu dugg xeej na euh, xat-xataayu ligne bi moo leen jàpp rek ba tax euh, ñu ci bëri bëgg a dugg mu xaw a jafe waaye ni ngi leen di bàyyi xel ci 88 628 99 80 ñu bàyyi ci xel ala kulli xaal ñi ñëw ci mbokk mi nga xam ne bii moom it daf doon wax ne liñ fi waxoon keroog ci koy kuy def examen wala concours waxoon nañ leen ne alxuraan mbokk mi bàyyiwul dara maa farratna fil kitab min shay'in lépp lu ñu soxla rek min xawaaiji dunyawiyati ci soxlay adduna yi su ñu demee ci alxuraanul karim dinañ fa fekk solution bi dinañ fa fekk résultat bi nañ ci bàyyi xel ki nga xam ne kii nag day def concours wala examen wala yeneen yu mel noonu bëgg yàlla may ko ci ndam bëgg avancer ci bëgg ci am lu kawe njortam parce que jullit bu nekk bu sañoon lépp lu muy yëngatu yàlla may ko ci ndam moo xam examen la moo xam concours la moo xam euh, leneen lu manti doon daal mu di ci yëngatu ngir avenir boppam bu sañoon yàlla defal ko ci lu kawe njortam waaye nañu bàyyi xel mbokk yi ci ne suñu amee exame bu nit ki di def yow mi waajuram ñu ngi lay ñaan nga jël li ñu bëgg a wax ci suratul an'am muy bismillahi arrahmani arrahim wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka xakimun alim nga jàng ko 66 defal ko ki nga xam ne kii mooy defi examen balaa moo dem wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajata man nacha inna rabbaka hakimun alim mbokk yi mi ngi noonu muy la am solo di ko def 66 ci ki bëgg a def concours wala muy defi examen wala muy yóotu loo xam ne bëgg na ko jot mu jafe kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel euh, bokkul nag dara ak fa saar fa aaya ba jeexee kooku dinañ ci ñëw incha allah beneen biñ ciy tegu mbokk yi te xam naa ni euh, yóbbante yi jot nañ ci ñi koy woo di ko laaj muy faru rab faru rab bu la jàppee lan moo ci baax bu la sonalee lan moo ci baax soo bëggee mu dañ analu koy dindi jël leen seeni bindukaay ak seeni këyit ngeen teg ko seen wet ngeen bind gis nga nit bu amee faru rab guddi gu nekk buy tëdd balaa moo tëdd bu ngeen demee ci sóoratu saba yi saar bu ñuy wax saba yi su ngeen fa demee di ngeen ci fekk li ñuy bëgg a wax muy aaya boo xam ne bii moom lañuy bëgg a wax ngeen teewlu ko muy bismillahi arrahmani arrahim wali suleymaana reexa غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نزق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور nga def ko mbokk mi 33 fois soo fa jógee nga jël wa samaay wa taarix nga def ko 33 boo ko boolee di nga am 66 ndax 66 dafa bokk ci nombre yi chiffres yi gën a baax ci chiffres yi waxoon nañ leen ne leen chiffres yi gën ci chiffres yi ñetti chiffres la 9 7 ak 6 moo gën ci chiffres yi dinañ ci ñëwaat incha allah bu ñu ko jataay bi gën a mayee ba mu gën a yaatu incha allah dinañ ci ñëw gën ko leeral waaye daal ñaari mbir yi soo defee bii 33 bii 33 di nga ci am euh, nombre 66 incha allah yàlla dina la dàqal àndandoo fara rabbi ak doole ji mu mën a am ci yow dana tàggoog yow waxoon nañ leen ko dinañ ko baamtuwaat muy wali suleymaana riixa guduwaha shahrun wa rawaahuha shahr wa asalnaa lahu ayna alqitri wa min al-jinni man ya'mal bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu min azabi as-sa'ir ya'malun lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifanin kaljawab wa qudurin rasiyatin i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur ngeen boole ko ak wa samaai wa taarix eh, muy bii 33 bii 33 ngeen am ci adadu 66 muy la am solo lool amma yataallaq eh, mu féete ci mbiri àndandoo ak farurab ak xeet yu mel noonu bu dee ku góor ki na ko def bu dee ku jigéen ki na ko def am na solo lool mbokk mi nag da doon laaj ci wàllu sarax bu nit di génne sarax ban sarax la war a génne bi nga xam ne bii méngoo ne ak mbir yu bari gis nga mbokk mi sarax bi bi nga xam ne bi ajo bu ñëw ci aajooy jafe-jafe yi aajooy soxla yi jafe yi aajooy tolof-tolof yu metti yi mën nga ko génnee muy alxamxu wa durratu muy mboq ak dugub waxoon nañ leen ne soo leen di génnee sarax génne leen ñaari kilo mboq ñaari kilo dugub mboq mi ngeen jox ko góor dugub bi ngeen jox ko jigéen benn bu ci nekk ngeen jàng ci fatiha benn yoon iza jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon gis nga mbokk mi alxamxu wa zurratu mboq dafa am sirru bu ci yàlla def dugub am sirru bu ci yàlla def gis nga mbokk mi dañuy bàyyi xel ni bu nawet jotee première taw bi ñëw fekk nga ji sa jël say doomu mboq wala say doomu gerte dugal ko ci biir suuf si toog di ko xaar première taw boobu bu ñëwee liggéey bi muy def deuxième taw bi bu ñëwee bokkuñu liggéey taw bi installé gerte gi may ko position bu mu war a mën a jaar ba meññ ak taw bi nga xam ne bu ñëwee dal ci ko mboq bi mbaa dugub ji mbaa gerte gi mooy ubbi yoon wi nga xam ne bi fa la xobu garab gi di génne pour mën a meñ bokkul beneen taw ba cay tegu ba nga xam ne bi bu tawaatee nga gis ni gerte gi mi ngi commencé di sax génn ci biti ak xobu garab yi muy àndal bu dee mboq kazalika bu dee dugub kazalika boobu ndox bokkul ak ndox bi nga xam ne it bu ñëwee mooy tax yëf ya gën a yaatu ba foo toll ci tool bi seen meññent yi eh, ndox yu wute yooyu te benn bokku ci ak moromam substance nañ ci bàyyi xel waaye amaana néew na luñ koy xam parce que ndoxu taw lañ koy tudd rek ndoxu taw la waaye tilkal anwaa min al miyaahi min miyaahil matar xeetu ndox yooyu benn bokk ci ak morom te benn bu ci nekk fa muy jóge barke ba ca nekk surr ba ca nekk la mu àndal la mu mën a def lu moromam dul def dafa bari mbokk mi moo tax ñi ne leen alqamxu wa zurratu diggante mboq ak dugub barke bi ci nekk kenn xamul nu mu toll gis ka yàlla buy nangu ñaanu saraxu mboq da koy ful ful gi mooy lan mooy soo defee ñaari kilo du kilo yi la yàlla di ful yàlla buy ful doom yi lay ful ñaari kilo mboq doom yi ci nekk lay ful benn doom bu ci nekk mu defal la ko ay xéwal yu dul jeex yàlla noonu lay tëralee ay mbiram su dee dugub ñaari kilo yi benn pepp dugub bu ci nekk yàlla fulal la ko defal la ko fadail yoo xam ne laa tuaddu wala tuxsa defal la ko ay ngëneel yoo xam ne kenn xamul fu muy commencé kenn xamul fu muy jeexe su ngeen ko xoolee nag ci tuutiwaay ñaari kilo yi dangeen di juum mbokk yi ndax mboq fiihi barakatun kama fil xamxi barakatun mboq dafa am barke dugub am barke kon boo jëlee ñaari kilo mboq nga ñaan fatiha bu sell ida jaa nasrullahi juróom-ñaari yoon nga jox mboq mi góor dugub bi jigéen kadalika moom it noonu nga koy doxe ni nga def ci mboq mi noonu ngay def ci dugub bi jox ko ku jigéen kon muy am solo lool mbokk mi ñu bàyyi ci xel di fàttaliwaat toujours askan wi euh, ci numéro yi nga xam ne yi moom ngeen di ànd ak ñun ñi nga xam ne ñii ñi ngi ci ligne bi bëgg bëgg dugg ànd ak ñun ci 88 628 99 80 ak ñi ànd ak ñun ci vingt 220 221 33 841 23 23 yumkinukum an tattasiluna xaalan bi haadayn arraqmayn inchaa allah xaysuma ittasaltum bina sa tajidunana xaadiran inchaa allah su ngeen wootee rek di ngeen jot ala kulli xaal ñu ngi leen di teewlu di leen bàyyi xel di leen nemmeeku ala kulli xaal Euh, ci foofu ngeen toll noonu euh, ci ñaari numéro yooyu ñu tudd léegi euh, beneen bi ci nga xam ni moom lañ ci toftale waxoon nañ ko dinañ ko waxaat waxoon nañ leen ne salaatu ala nabi mbokk yi isa balaxtum sinna cheyxuxati su ngeen demee ba toll fenn fi ci seeni age commencé ko ci cinquante ans jëm soixante dee leen wird 777 salaatu ala nabi am na waxtu yoo xam ne bokk ci saxalee incha allah say bët du naqari say tànk du naqari sa jëmm du du woyof loo yootu yàlla jàppale la ci waaye it incha allah di nga ka am lu kawe sa njoot fii ma baqiya min amrik ci la des ci sa dund say bët du naqari te doo am feebar boobu ñu tuddee alzheimer kooku salaatu ala rek moo ko man nabiyil karim sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dee leen di def salaatu ala nabi yi mbokk yi ci 777 euh, fi kulli laylatin qabla nawmi gudd gu nekk balaa ngeen di tëdd ndax salaatu ala nabi 777 fihi sirrun qaati wa fihi sirrun kabir secret bu rëy mi ngi ci nañ ci bàyyi xel salaatu ala nabi nag mbokk mi bokk na ci li nga xam ne lii mooy tax nit tilata xayaatik aw fi ma baqiya min umrik bokk na li des ci sa dund li nga war a dundaat mu néew mu bari alzheimer doo ko ci am euh, bët yu naqari doo ko ci am dégg-dégg bu naqari doo ko ci am ndax salaatu ala nabi nuurun kama kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa kama kaana alquranul karim nuuran gis nga tilkal anwaar yi yooyu la leer boo ko dajalee ñu tënkal la ko ci salaatu ala nabi yi nga di ko jëfandikoo yaa ngi jëfandikoo leer goo xamul te leer fu mu fekk nit dina dindi lëndëm installé leer ci biiram ci ci làmmiñam ci xelam ci ay bëtam ci jëmmam ci léppam yataxayaru jamia ma kaana fi xayaatihi nuuran lépp loo xam ne nekk na sa dund nekkoon lëndam yàlla ci mbaaxam dina la ko soppil dafa la ko leer kon nañ ci bàyyi xel salaatu ala nabi mbokk mi 777 baax na lool fi ma baqiya min umril insaan ci li des ci dunduk doomu aadama nga di ko def guddi gu nekk balaa ngaa tëdd nga wér de salaatu ala nabi 777 am na solo lool te ku ko jëfandikoo it incha allahu boo dawee tuuti di nga xam ne lu am solo la lu baax la lu jara bàyyi xel la mbokk mi kii dafa yónnee nag moom it den doon laaj loo xam ne lii waxoon nañ ko fi waaye dañ ko tënkoon rek ndax waxtu yi duñu doon may ñu ko woon ñu man koo faramfàcce muy xamsuuna qaaf kaana yasalu anna amma yataallaq an xamsuuna qaaf xamsuuna qaaf sirrun kabir min al asrar al kubarai wa fihi ismu allahi al azam al kabir al akbari الجليل الأجل الذي من دعا به أجاب ومن سأل به أعطى وفيه سر قاطع gis nga xamsuuna qaaf nag mbokk mi eh, juróomi aaya la yu nekk ci alquranul karim eh, jamono yi di ñëw incha allah alarba yii di ñëw dinañ jël benn ci alarba yi dugg ak yéen ci xamsuna qaaf wax leen lan mooy xamsuna qaaf ngeen xam ko bu baax xam fi ngeen di teg seen tànk ndax julit lépp lu muy def war na xam mabda u zalika wa intihaa u zalika war na xam commencement loolu ak jeexalu kaayam am na ci solo lool ñu bàyyi ko xel di ko teewlu bu baax saa ne waaye incha allah dinañ ci ñëw ànd ci ak yéen euh, gën leen ko leeralal bu baax waaye waxoon nañ leen sànq ne leen euh, liñ fi waxoon léegi te mbokk mi woo woote ne nañ ci bàyyi xel gën ko ñaax gën ko waxaat maanaam pour ñu mën ci jëriñu bu baax muy kii am feebaru xol da ngay jël meew mu tàng nga jàng ci alam nasrah mbokk mi 666 nga ëf ko ci ndox mi ci meew mu tàng mi mu mujj sa biir mën nga bàyyi ba xaaju guddi ba ngay waaj a tëdd nga def ko naan ko door tëdd gis nga mbokk mi boo ci saxee incha allah crise cardiaque feebaru xol méttitu xol yoo ci mën a amit ak lu mu tar tar tar yàlla dina la ci defal sa lu kawee sa njort muy alam nashrah laka sadrak muy la am solo lool ñu bàyyi ci xel euh, muy loo xam ne lii mbokk yi jar naa bàyyi xel lool ndax wa fi alqurani ma huwa shifaun linnaas wa rahma waxoon nañ leen ne alquran lépp ngi ci te yàlla waxoon nañu ma farat na fil kitab min kon nañ ci bàyyi xel bu baax euh, ñi di ko fàttali saa yu ñu ñëwee euh, mbokk mi nag neen dafa doon laaj moom it euh, soo amee doom bu dëgër bopp lool nga tere mu të bàyyil du bàyyi toogal du toog muy li yéeme bul dóor bul génnee kër gi bul dàq ñu baamtuwaat ko soo amee doomu dëgër bopp ba jaaxal la lool bul dóor bul dàq bul génne kër gi téyel bu baax te xam ne ginnaawam am na ko fa ne koo xamul inna sheytaana waaqifun waraahu wa huwa yamudduhu fi tughyaanihi gis nga boo moytuwul seytaan yi ne nga taxaw ci ginnaaw sa doom jooju di ko bëgg a génnee ci say loxo réeral ko kon soo ko bàyyee mu gën a sànku soo ko génnee kër gi nga gën a yokk jafe-jafe kon téyel ba mu baax nga jàng ci li ñu bëgg a wax guddi gu nekk balaa muy tëdd na nga jàng ci boppam fanweeri yoon ak ñett qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala antum aabiduna ma abud wala ana aabidu ma abadtum wala antum aabiduna ma abud lakum diinukum waliya diini qul yaa ayyuhal kaafiruun xale lu mu dëgër dëgër bopp boo ko koy farataal di jàngal ci boppam xabla naw mi balaa moo tëdd di nelaw inchaa allah sa yugayyirullah xaalahu yàlla dina la ko soppil tegal la ko ci siraatan mustaqiman muy lu am solo te doo dóor bul dàq bul wax wax ju ñaaw bul génne kër gi doom soo ko amee nga am ci moom lu la naqari wala boog nga gis ci moom jikko bula la gënalul wala dëgër bopp wala xeet yi mel noonu bul doq bul dàq bul dóor bul xas bul wax wax ju ñaaw téyel nga diis ko alxuraanul karim boo ko ko diisee dina la indil solution solution bi nag wax nañu ko léegi mooy qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu ma taabuduun wala antum aabiduuna ma abud wala ana aabidu ma abadtum wala antum aabiduuna ma abudu lakum diinukum waliya diini nga jàng ko fanweer ak ñett ci boppu xale bi inchaa allahu eh, yàlla dina la ci defal lu kawe sa njorte ci xale boobu yàlla dina ko soppi yàlla dina wëlbati xel mi ba mu nekk ala siraatin mustaqimin ba mu nekk ci yoonu jub nañ ci bàyyi xel muy la am solo lool euh, muy 88 628 99 80 wala 00 221 33 841 23 23 su ko defee mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax muy la am solo lool waxoon nañ leen nag ne leen soo takkee soxna nga bëgg néeg bi nga koy wàccee soo ko fa wàccee du ngeen réeroo sëy bi du yàqu du bari jafe-jafe du bari torof torof ndax bari aana kuy takk soxna indi ko ci sa biir kër du ngeen def juróom benn weer sëy ba yàqu te la koy yàq lu tuuti lay doon loo xam ne lii warul mën a nekk sabab bu sëy di yàqoo mbokk mi nañu bàyyi xel ci ne sa yu yàq yu bari seytaane da ci dugal loxoom moo tax booy takk soxna néeg bi nga xam ni bi moom nga koy dugal jiitu ko fa nga jàng fa lii ñu bëgg wax nii nga def aoudu billahi min asheytaan arrajim 66 bismillahi arrahmani arrahim 66 ba pare nga jàng fa bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ard wala fi sama wa huwa samiun alim 66 gis nga soo ko defee yàlla dina la aaralal néeg bi seytaane dootu fa taxawalooti su soxna su ñëwee ba dugg ci biir néeg boobu seen sëy dana yàgg di ngeen jàppalante yërëmante ànd ci ànd bu rafet nañ ci bàyyi xel muy la am solo ñu baamtuwaat ko jàngal ci biir néeg bi aoudu billahi min alsheytaan arrajim 66 bismillahi arrahman arrahim 66 nga door a jàng bismillahi alkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi sheyun fi l ard wala fi lsama wa huwa samin alim 66 soo ko defee jiital ko ci néeg boobu mbokk mi yàlla dina la ci defal lu kawe sa njort dina la la aar téye leen sëy bi dafa am mbir fu muy tollu ci dunduk doomu aadama dafa war a di dellu ci yàlla su fekkente ne sëy bu ñëw yàqu sëy bu ñëw yàqu am na lu sabab wala boog am na sabab bu tax loolu de am nañ ci bàyyi xel waaye nañ di jiital ci néegi waxataa sax sa doom bi nga xam ne bii euh, sa sa soxna mi ngi door a mucc ween wi mu koy nàmpalee balaa mu koo jox mu di ko nàmp soo bëggee xale bi yeewu baax yaru xam kilifam am respect nekk ku jub jiitaleel ci weenu yaayam balaa mu ko nàmpal bismillahi aoudu billahi min sheytaan irajim 66 nga jàngaat ci bismillahi rahmaani rahim 66 nga jàng ci bismillahi ilkaafi bismillahi shaafi bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiin alim 66 ci weenu yaay ji bu ko nàmpee incha allahu yàlla dina ko jubal teg ko ci ala siraatil mustaqim seytaane du am ci moom yoon bay def ci moom dara mbokk yi ñu ngi jéggalu xat-xataayu waxtu wi waaye incha allah fas yéene nañu àllarba bu jot ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci seen émission addu'a li qadaa il xawaij di ci ànd ak yéen àllarba bu jot ci waxtu wi di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm yal na yàlla tàppe xol yi ñaada nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wàcci laahil karim allahuma rabbi samaai wal ard wa nuuri wa zulmati wa zilli wal xaruur yaa man shaqal bihaara wa ajral anhaar yaa man huwa ilahun fi kulli makaan laa yantahi ilayka basaru naadirin yaa ilahi fi majdi jabarutika irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratik wa ala an zikri zakirina kibriya wa azamatik fala yantaqis ya rab ma aradta an yazdaad wala yazdaadu ya ilahi ma aradta an yantaqis la ahada shahidaka xiina fatarta alxalq wala nidda wala didda xadaraka xiina barraat annufus kallat alalsunu kallat alalsunu an tafsiri sifatika ya allah وانحسرت العقول عن كنه معرفتك يا الله فكيف يوسف كنه صفتك يا رب yaa man huwa ilahun fi kulli makan yaa man qaala li muusa idrib bi asaaka albaara fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli ala sayidina muhammad salaatan taftah lana biha abwaaba alrida waltaysir wa tuxliqu anna biha abwaaba alchar waltaasir wa taqdi lana biha jamica alxawaaij wa takuna lana biha waliyan waliyan fi ddunia wal axira ya rab ya ilahi anta waliyuna allahumma anta waliyuna fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل